jële nañ ci amash mu jële ci shaqiq mu jële ci abdillah mu ne yonente bi sallallahu alayhi wa dafa wax ne ndax duma leen xamal baat yi Muusa waxoon bañ ñëwee ca géej ga mu ànd ak bani Israil tañ jaaxle ñu ne ko ah kay yow yonente bi yàlla bi mu ne nee leen allahumma laka alhamdu wa ilayka almushtaka wa almustaan wa altuklaan wala hawla wala quwata illa billahi alaliyi alazim mu ni wax leen lii mooy baat yi nga xam ni bi Muusaa amee njàqare ñëw ba ci géej gi Firawna nekk ci ginnaawam baat yi la waxoon Abdullahi moomu nee na mosuma leen a bàyyi bi ma leen déggee ci yonente beeg léegi mosuma bàyyi baat yooyu nee na ba ne Israël daal di xuus géej gi giir gu ne yoonu boppam ndox mi nekk ci peggam mel ni aw doj wu mag ba ñenn ñi duñ gisante ba ñoom ñi ñëpp ñu tiit ñenn ñu ne jàpp ni seen mbokk dañoo alko yàlla wax yu ndox mi mu tasaaroo mu wàcc nee na ndox mi bi mu wàccee wala ba ba kenn ku ne di seen sa morom kenn ku ne yoon wi nga nekk yaa ngi seen sa morom mu nekk yoon wa des ñuy gisante ñenn ñu ne di dégg la seeni morom di wax bañ jéggi géej gi mucc amuñ benn jafe-jafe nee na loolu yi moom la alxuraan nan wa is faraq naa bikumul bahra faraq naa mooy falaq naa mooy bis bañ leen xaralee géej gi jaqil leen ndox mi di jor ak càmmooñ musal leen labal niti firaaw na ngeen di xool mooy wa is faraq naa bikumul bahra fa anjaynaakum wa agraqnaa ala firawna wa antum tanzurun wax nañ ne Moussa bi mu génnee moog ñim àndaloon ba weesu ba jéggi géej gi ba jàll léegi mbooloom Firawna daldi agsi Moussa bëgg a ñaan géej gi mu dellu ci na meloon bu njëkk yàlla wax yu ko ni ko bàyyil géej gi mu dal watrukil bahra rahwan innahum jundum muhraqun bàyyi ko mu dal ni mel rek ndax soldaar mbooloo lañu mu war a lab nee bi kuréelu Firawna agsee ci géej gi ñu gis mu xar firaaw na ci rëy rëylam dafa wax ne gis leen géej gi sax xar na ngir tey gum ma tey ak respect bu ma jox firaaw na wax mbooloom ni leen gis leen géej gi ni mu xare ngir rey ngir ragal gum ma ragal ba ma mën a dab samay noon daal di leen dugg leen nee na mbooloo mi ragal ñemewuñoo dugg ci géej gi te booba fase firawna jigéen fas wu jigéen newu ci woon lépp ay góor la woon nee na jibril alayhi moo indi aw fas wu jigéen daldi mel ni ko bokk ci soldaar si rek daal di jiitu boobu mi ngi yor kaara gu ñuur moom jibril bi fasu jibril woowu jiitoo daal di xuus géej gi rek léegi nit yi firawna daal di jàpp ni gawar bi ci ñoom la bokk bi fas yi xeñtoo xetuk fas wu jigéen woowu leen jiitu ñu dal di euh, tëb rek daal di dugg ci géej gi ñoom ñëpp daal di topp ci ginnaawam ba ñoom ñëpp ñu dugg ñu wax ne Mikaayil dafa ñëw yor aw fas war ci kaw fas nekk ci ginnaaw mbooloo mi di leen soññ di wax ni dab leen seeni àndandoo dab leen seen i àndandoo bi Firawna demee ba bëgg sóobu yoonu muusaa wax na ni Firawna bi mu demee ba bëgg topp Muusa di dugg ci géej gi la ko wasiiram boobu di Haamoona tere ni ko bul dugg ni ko jàpp naa ni ndax fii bëkk démb léegi laa fi gëj jaar naa fi ay yoon xam naa yoon wi jàpp naa lool ni euh, lii du dara lu ay pexe yu jóge ci waaj ji rek waa ji day def ay pexeem yoo xam ni boo ci duggee rek bootul da nga waru te bu boobaa sunu ko alkande mën na ca nekk ak alkande mbooloo mi ñu àndal waaye Firawna bañ a topp Haamaana ci xalaat boobu ma ko jox daal di gaaw war aw fasam dugg ci géej gi euh, fas wi wax nañ ne bi fas wi naree bañ Jibril jaar fee ak fasam wu jigéen woowu léegi la daal di fas wi topp la daal di sutox lu topp ci ginnaaw fas woowu biñ demee ba nekk ci biir géej gi ba nga xam ni ña jëkkoon a dugg eh, ñu ngi dem bay waaj génn bay waaj a génn rek yàlla daal di boole ñaari cati géej gi mu tàpp leen boole leen ci biir mu daal di leen di labal ñoom ñëpp ña dugg nga xam ne kenn desul ba ña duggee ñaa jiitu woon dem bay bëgg a génn e, fekk ñëpp dugg nañ yàlla daal di tàppe ñaari cat géej gi labal leen ba kenn desut te lool lépp waa bani Israel ñu ngi jàkkaarloog moom lool yi moom la alxuraan di wax ne waa xaraqnaa aala firawna wa antum tanzuruun labal nañ niti firawna yéen a ngi xool nañuy narmeeloo nee na jibril daal di wéet ak firawna nee na firawna bi mu demee ba xam day lab mu ni e, amantu annahu laa ilaha illa allazi amanat bihi banu israil wa ana min al muslimin nee na jibril ni ko alaana wa xad asayta xablu wa kunta min al mufsidin jibril ni ko dangaa mooyoon bu njëkk bokk ci yàq yi euh, léegi loolu yi jibril moo ko ko tontu lañu wax am na ci hadis ñu ne jibril alayhi salaam wax na yonte bi sallallahu alayhi wasallam ne ko mosuma bañe kenn ci mbindeef ni ma bañe ñaari gaay ne ko kenn ki jinne la muy iblis la alayhi lahnatullah euh, bi mu bañee sujjóotal aadama bañal gi ma ko bañ mosuma ko bañ kenn Euh, ka ca des mooy ci nit la ci nit ñi la bokk muy firawna ba mu waxee ne ana rabbukumul a'la bañ naa ko bañ a gog musuma ko bañ kenn ni ko moo tax boo ma jesoon di jamono bi muy bëgg a wax bi bi mu waxee laa ilaha illa allazi aman bihi banu israil nara wax kalimatu tawhid dama doon fa ban di ko sol ci gémiñ gi ngir bañ mu di ko ñaareel ba tax yàlla di ko yërëm di ko jéggal loolu jibril moo ko wax yonante bi sallallahu alayhi wa wax nañu bani Israil biñ demee ba jéggi ba taxaw dégg coow lu baree bari muy bi géej gi tappaloo bay labal niti firawna nee ñu wax Muusaa ni ko coow lii lumu mu ni leen yàlla labal na alag na firawna ak képp ko àndoon ak moom labal na leen ci géej gi nee ñu wax Muusaa ni ko firawna du dee xanaa gisoo ne daana sax diir bu yàgg yàgg dara du génn ci moom du génn di def dara ci nit ñi euh, soxla yi daana na ñu ko nettalee ci ginnaaw rek daana am ñeent fukki fan yoo xam ne du tefli du ñandu du xaddamiku du dem wanag du def dara ci yooyu ba du di mu mujjoon jàpp ni euh, du dee nee na ñu ni ko du dee xanaa gisoo fan yi muy toog dara du génne ci moom yàlla ba mu leen bëggee xamal ni dana dee moo tax mu génnee jëmmi na mu des ci tefas gi bañ gisal ko seen bopp gis googu Euh, ñu ko gis ci lañ xamee ni dana dee waaye lu jiitu loolu rek jàppoon nañ ni dafa doon kudul dee nee na bi ñu ko euh, génne ga xuma ko génne ci biti mooy li alxuraan di wax ni fal yawma nunajjiika bi badanika li takuuna man xalfaka aaya wa inna kasiran min annaasi an ayatina la gaafiluun kon xikma bi tax yàlla bàyyi fi yaramu firaaw firawna mooy bëgg mu doon kiimaan ci nit ñi koy e, gis gannaawam ndax ñu bari dañoo sàggan ci kiimaan yàlla wax nañu Muusa bi mu jéggee ànd ak bani Israël ba jéggi géej gi dañoo ñëw fekk mbooloo muy jaamu ay xërëm waaye desiiti e, gëm xërëm gi nekk ci ñoom ngir yàgg ñu yàgg ak e, waa Misra te waa Misra moom xam ngeen ni jaamu xërëm rek dañu gëm jaxit jooju moo des ci ñoom eh, ñu jàpp rek ni fokk dañu war am xiram bu ñuy jaamu waaye yàlla moom xamaguñ tawxid ba léegi ñu ko yaa Muusa jaal lana ilahan kama lahumu aliha ñoo ni Muusa defal nu yàlla benn yàlla bu ñuy jaamu comme nit ñi amee yàlla bu ñuy jaamu mu ni leen innakum xawmun tajhaluun inna haulaai mutabbarun ma hum fiihi wa baatilum ma kaanu yamaluun mi leen yéen day nit ñu réer ngeen ndax ñoo ñi ngeen di wax day ñu alku lañ li ñuy def lépp ay neen la wax nañ ne benn yahud dafa ñëw ci ali ibn abi talib radiallahu anhu wa karrama ni ko yow abal xasan yéen day seen ginnaaw yonante bi ñaar fukki at ak juróom sax muñu leen lu ko mat ba tàmbalee rayante ci seen biir nee na ali yun tontu ko ne ko aha kay muñ nañ muñ gu rafet waaye yéen itam seeni ndëggu bi mu daataan di ci banub géej gi ñu leen jéggiloon rek ngeen tàmbali di wax ni yaa muusa ja'al lanaa ilaahan kamaa lahumu di bëgg a delluwaat ci jaamu xiram nee na tonti la lii na sayyiduna aliyun tontu yahudi yu boobu ko doon wax loole bi yàlla musali Muusa ak ñam àndal labal firawna ak ñam àndal dañoo wax ne Muusa dafa yónni ñaari sol kuréeli soldaar yu mag ci yu bokk ci bani Israil wax nañ ne kuréel bu ne Eh, fukki junni lañu ak ñaar mu yónni leen ci mada in yooyu muy dëkk yi eh, njabarkat yi nekkoon ak dëkk ya ca des nee na mu ñu eh, fekk ñi ca ëpp solo ñëpp woowoon nañ leen bañ ànd ci mbooloo mi alko ñu dem di delloo si ña ca des ci tawxiid ngir woo leen ci tawxiid wax nañ ni Yuushua ibnu Nuun moo jiite woon ñaari kuréel yooyu doon wooy ahlul madain yooyu waa dëkk yu ndaw ndawaan yooyu nga xam ne ñoo waroon Égypte nee na biñ dëkkee biñ duggee ci dëkk yooyu euh, lañ màng mbooleem lu fa des ci ay alal ak i ndàmbo yanu ci lool seeni cëf ka di caa des gan la nga xam ni ne attanuñ ko mënuñ koo yanu biñ demee ba ci yoon wi ñu jaay ko nee na loolu yi la alxuraan di juñu di كم تركوا من جنات وعيون وشروع وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين mu ni bàyyi nañu ay tool ak i mbel ak i xéewal yooyu ci lañ daan xéewloo waaye ñu donnal ko ñeneen ñu dul ñoom wax nañ Yuusu ibnu Nuun foofii ci eh, niti Firawna yooyu muy ahlul madain yooyu mu doon wooyi bañ gëm dafa bàyyi benn waay bu ko fa wootu di leen teg ci aw yoon di leen wañoon tawxid mu daldi dellu moom ànd ak ñi gëm dellu ci Muusa alayhi salaatu ak ba muy dem ca doj wa ngir ak boromam ak jox gi ko yàlla jox euh, àlluwa euh, def ay xikma ak wàccee gi mu wàccee tawreet ci moom ak li aju ci loolu yi moom dañuy bëgg a waxtaan nii sunu borom nee na wama waadna Musa salaasina laylatan wa atmamnaha yàlla nee na dañu dalanteeg Musa fanweeri guddi mottulee ko fukk am beneen birab boo xam dafa wax ne wa is waadna Musa arbaina laylatan am beneen béréb boo xam ne lam ca wax mooy euh, daalente nañu ak Moussa ñeent fukki guddi boroom xam-xam yi wax nañ ne Moussa dafa daaloon bani Israil ni leen bu ñu génnee ba muy nekk Misra leen waxoon ni leen bu ñu génnee Misra ba not seeni noon day ya dana yàlla dana leen andil ab téere boo xam ni li ñu bëgg ngeen di ko def li ñu leen di digal ak li ñu leen di tere lépp ci la koy dajale nee na bi yàlla alagee firawna ak i nitam nee bani israil jël la nekkoon ci loxo yi firawna ak i nitam bañ mucc ci seen noon boobu yi te amuñ benn téere bu ñuy sukkandiku amuñ benn sharia bu ñuy euh, teg seeni mbir ñoom ñoo wax Moussa ni ko indil nu téere ba nga nu dayaloon Moussa daal ñaan yàlla yàlla digal ko mu woor fanweeri bés te laab te laabal ay yéreem te ñëw ci toori ngir mu waxante ak moom moom yàlla te jox ko téere bi yi nee na Moussa daldi woor fanweeri bés ba mu yéegee ca doj wa xeetu gimiñam xeetu gimiñam gi doon xeeñ ngir koor googi bi mu ko fakkee jàpp doonut lu baax mu daldi wut ab bant di ko soccoo abul aliya wax nañ ni wax na ni dafa jël ci euh, xañ ci ci garab la jëloon di ko soccoo malaayka yi ni ko xetuk misk de moo na doon xeeñ ci sa gémmiñ waaye bi nga soccoo nga ko yàq nee yàlla wax yu ko ni ko waral fukki bés yeneen daal di ni ko xanaa xamoo ni xetuk gémmiñu ko woor moo ma gënal xetuk misk moo gën a tey fa yàlla xetuk misk neena seen fitna nag mi ngi amee ci fukki fan yi Moussa dolli ci fanweer yam leen waxoon ndax di ni woon gën jaa yàgg duma fa weesu fanweeri guddi waaye yàlla mottuleel ko ca fukk fukki fan yi zil hijja la wax ni mooy fukki fan yem ca dolli xasan ibnu muhammad jël na ci abi hurayra mu wax ni weer yépp danañ wàññi ko ba mu des weeru zil qida weeru silxaada moom lu ci ëpp day mat rek ndax yàlla dafa wax ne waa adna muuse salaasiina laylatan wa atmamna habi ashir mooy dëlent nañu ak Muusa fanweeri guddi mottulee ko yeneen fukk yu bokk ci weeru sil xijja fa tamma miqaatu rabbihi arbaina layla mu daal di mate ci lool yi ñeent fukki guddi wax nañu bi ñeent fukki guddi yi matee la Muusa laab dal di laabal ay yéreem ngir miqaay boroom yooyu ba mu ñëwee ci toori Sina yàlla waxanteeg moom diyaale ak moom at koy jegeñal ni ko yàlla waxee ci alxuraan ni wa xarrabnaahu najiyya mooy ñu jegeñal ko muy ku ñu deyaaleel wax bu nee na diggante Muusaa ak boroomam juróom-ñaar fukki kiiraay nekkoon na fi yàlla yëkkati yépp ba mu des genn kiiraay nee na Muusaa jege ko ngir waxante ak moom bi mu waxante ak yàlla nag dal di xeemeem ak gis jëmm ji dal di wax yàlla ne ko arini anzur ilayk mooy dama bëgg nga wan ma sa bopp su di yu nee na Muusaa bi yàlla waxante ak moom la Iblis xuus ci juróom-ñaari suuf yépp ba génn génn ci diggante ñaari ndëggu Muusaa dal di jax-jaxee xelam tàbbal ci xelam ni ko kiy wax ak yow seytaane la loolu yi moo tax Muusaa ñaan boroomam ni ko arinii anzur ilayka ngir doon sikki sàkk ba xam kii wax ak moom yàlla la wala seytaane moo tax mu wax wax jooji yàlla ni ko dooma gis ndax mbindeef mënumaa gis ci àdduna Muusaa dal ni yàlla dégg naa say wax xeymam na ma gis sa jëmm kon li ma bëggoon nga may ma ko daal mooy ma gis la ni ko gis la sax dee moo ma gënal may dundaat ci àdduna te duma la jës ndax xaymam teef gi ma ci am nen yàlla ne ko xoolaat doj wi te muy doj wi gënoon a mage ci Madiyana jamono boobu ñu di ko wax Zabir Zabir moom yi moom la ko yàlla ne ko mooy doj wi fi gën a kawe ci doj yi gën ci rëy xool ko am na ci nettalikat yi ñu wax ni bi yàlla waxee Muusaa ni ko xoolal doj wi nee na doj yépp bi biñ xamee ni yàlla dafa dana wuññiku ñeel aw doj rek dañoo daldi màgg màgg lu daldi rëy rëy li ñoom seen jëme bopp ngir li yàlla war a wuññiku feeñoo feeñ ci doj wi waaye zabir mooy doj wa ca toroxlu woon moo tax yàlla feeñu ko ca doj woowee jagleel ko ko moom zabir ngir toroxloom googu yàlla wax Moussa ne ko doj yi boo ko xoolee bu saxee bérébam dara sikkul ci moom rek kon danga ma mën a gis waaye ba mu ko wuññi ko rek la dojoo def pënd daal di maasaloo ak suuf si boroom xam-xam yi dañoo woote ci feeñu gi yàlla feeñu doj wi Ibnu Abbas nee na leerug yàlla moo feeñ ci doj wa daxaak wax ni leerug ak leer ci kiiraay yooyee moo feeñ ci doj wa abdullah ibnu salaam wax ni li feeñ ci kiimaan ni la feeñ ca leerug yàlla ca doj wa ba tax mu def pënd noonu lu toll ni bën bënu pusa rek la bën bënu pusa la feeñal ci as leeram ca doj wa dañoo def pënd xasan wax na ni yàlla dafa wax yi doj wi ni ko ndax attan nga gis àttan nga ma àttan man nga maa gis ndax gis ma da nga ko àttan nee na doj wi ba mu ko nee ndax attan nga ko rek la doj wi nuur ci suuf si ba kenn gisatul lu ci bokk wax na ni feeñu gi sax weesuwul lool ndax attan nga sama gis la ko wax doj wi kàddu googu mu wax képp moo tax mu nuur ci suuf si masul ak moom léegi Moussa xool gisatul lu bokk ci doj wa nga xam ne pënd dafa jis sahlu bnu saad asaaidi yi wax na ni yàlla dafa feeñal ak leer ci diggante juróom-ñaar fukki junniy kiiraay mu feeñal ca luy tolloog ab dirham ci ak leer mu génne lu toll ni ab dërëm rek lu génne ci leer ga daju daal def pënd kon wax jooju mooy wax gañ wax ca feeñu gi yàlla feeñu ñëwoon doj wa tam def pënd Moussa daldi rot daldi xëm bim xamee malaayika yi daldi wax ni waaw ibnu imran ana lu tax muy laaj ak gis yàlla te dara feeñu wut ci leeru yàlla rek mu daldi xëm nii fekk peggu doj wi dañ ko peegewoon ak i malaayika malaayka yooyu ko peegoon ñu peeg leen ak safara safara woowu ñu peegaat ko ak i malayka malaayka yooyu ñu peegaat leen ak weneen safara yàlla feeñu lu feeñoo noonu doj wa mu daldi def pënd ñu ni yàlla dafa dal di yabal jibril ci jannatu adnin ginnaaw bu mu ko feeñoo ci doj wi te attanu ko mu dagg fa ak garab garab googee mu jëli ci juróom-ñeenti alluwa alluwa bu ne guddi na fukki xasab ci xasabu Muusa yaatuwaay bi it noonu la toll fukki xasab ci xasabu Muusa wax nañ ni garab gi ñu jëlee alluwa yooyu ci wurusu yi ñuy wax zumurrud al axdar ci la bàyyi ko ne yàlla digal jibril mu andi ko mu bindal Muusa tawreet ci loxoom moom jibril Muusa di dégg xëj xëji kara xëj xëji xalima gi nee na yàlla moo ko bindal tawreet ba mu koy bind mi ngi dégg xëj xëji xalima gi ci alluwa mu bindal ko te min kulli shay'in maw'izatan wa tafsila ni ko alxuraan waxe mu digal Moussa mu jël ko attanu ko ngir diisoo kolere yi ca nekk mu e, ñëw yëkkati alluwa yi ba teg ko ci kawam ba yan ko ko ne bi mu ko ko yenee Moussa waxante ak ni ko ana kan moo attan alwa yi ak li ci nekk ci ak leer ak i béral ak i coloré nee na mu ne ko bind naa ay mbindeef yoo xam ne attan nañ ko nee na yàlla moo ko dal di yabalal ay malaayika yoo xam ne ñoo ko gàddulal ci limub araf yi nekk ci tawret malaaka yu toll nit limub araf yi nekk ci tawret ñoom la yebal ñu gàddul ko ba yóbbul ko Moussa fa mu bëgg nee na yi mooy li aju ci alluwa yi joxoon Muusaa te wax ni wa katabnaa lahu fil alwaahi min kulli shay'in maw'izatan wa tafsilan li kulli shay wax nañ ni bokk na ci la waaraatee yàlla bindoon ci alluwa yooyee li abdihi wa rasulihi muusa bni an sabbihni wa qaddisni laa ilaha illa ana fa'budni wa la tushrik bi shay'a washkur li wa liwalidayka ilayya almasir wa hayyika hayatan tayyibatan wa la taqtuli nafsa allati harrama allahu illa bilhaq fa udiqa alayka alsamaa bi aqtaariha in lii bokk na ci àlluwa yim bindoon bismillahi irrahmani irrahim mu ni lii ab téere la bu jóge ci yàlla miy buur di ab ñaajaakon di aji tedd di ab notaakon jëme ko ci jaamam di ab yonenteem Muusaa ibnu Imraan li ma lay digal mooy na nga may sabbaal di ma diis ndax amul benn buur bu dul man na nga may jaamu te bul bokkaale dara ci man te di ma sant di sant sa ñaari jur ndax sama mujjug mujjug lépp day ci man la jëmte boo ko defee naa dundal dund gu tey ni ko bul rey bakkan bi yàlla araamal bu boobaa day danaa xatal asamaan ak ay goxam ak suufa ku yaatoom ci yow ne ko bul giñ mukk ci sama tur ay fen ndax kat duma laabal duma sellal kenn ku dul magal sama tur kon sama tur bu ci giñ aw fen mukk bul seere mukk it lu sab nopp déggul sa bët gisu ko te sab xol taxawu ja mooy te wax yu wuñ la ko rek ndax na nga xam ni kat ñi doon seere danaa leen taxawal yowmal xiyaam ca lañ seere woon laaj leen lañ doon seere mu ne ko Moussa bul iñaane nit ñi ci leen yàlla jox ci li ma leen jox ci samay ngeneel bu leen ko iñaane li ma leen jox ci sama wërsëg bu leen ko iñaane ndax ku iñaan kat noonu samay xéewal la ku iñaan dafa mel ni dafay bañ sama euh, sama séddale moo ko neexut ne ko bul njaaloo bul sàcc ndax boo ko defee di danaa yiir sama kanam ci yow ba doo agsi danaa tëj sag ñaan samay bunt ba sag ñaan du agsi du agsi ci asamaan Moussa bul rendil kenn ku dul man kenn ku dul man ndax xeeti jaamu yi ci kaw suuf kat dara du ci agsi ci man lu dul luñ tudd luñ ci tudd sama tur ne ko bul kàccoor mukk ci ci soxna sa dëkkandoo ndax loolu day sànja bu rëy la fi man ko képp ku njaaloo soxna sa dëkkandoom day mer mu rëy rëy lay fekk fii fi man ni ko na nga bëggal nit ñi li nga bëggal sa bopp yow Moussa nanga leen bañal li nga bañal sa bopp lii mooy nusxab fukki baat yi e, mooy nusxa boobu lépp yàlla jox na ko sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci fukki baat ak juróom-ñett muy li mu wax ci suratul isra ni wa rabbuka allaa taabudu illaa iyaahu wa bilwaalidani ihsaanan aaya boobu tàmbulee foofu ba ca mimma awha ilayka rabbuka min al hikma loolu mboolem liñ dénkoon Muusa ci biir alluwa yooyu yàlla tënk na ko ci diggante boobu ginnaaw bi mu dajalewaat ko ci ñetti aaya ci sóotu lanaam muy xul taala watlu ma harrama rabbukum alaykum alla tushriku bihi shay'an wa bil walidayni ihsanan ba bi zaalikum waseekum bihi laallakum tattaquuna ja ñetti aay yi mbooleem dénkaan boobu ñu dénkoon Muusa daje na ci jële nañ ci kaabul ahbaar mu wax ni dafa gis benn fóore ci yahood yi bu bokk ci yahood yi muy jooy nee mu laaj ko bi mu fekkee Fodé ji muy jooy mu ne ko lu lay jooyloo mu ne ko dafa am lu ma fàttaliku rek am ni ko ndax sa digganteeg yàlla su ma la waxee li la tax su ma la waxee li la tax di jooy danga ma dëggal mu ne ko waaw mu ne ko sa digganteeg yàlla ndax fekkoo ci bi yàlla bi mu wàcce woon ci Muusa alayhi salaatu wasalaam yàlla waxanteeg Muusa ndax fekk woon ci tere boobu bi ni Muusa dafa mas a xool tawret benn yoon daal di wax ne man di gis naa aw xeet woo xam ne ñooy ngën ci xeet yi ñu génnee leen ci nit ñi ñuy digle lu baax di tere lu bon gëm téere bu jëkk bi ak bu mujj ba di xeex ak ñi réer ba aji patt ji ji ji ñuy wax masiixu dajal sax ñoom danañ ñoom waa xet woowu ñooy xeex ak moom bi Moussa gisee loolu ci tere bi daal yàlla yàlla na nga def leen ñuy sama xeet nee na yàlla ne ko ñooñu xeetu Muhammad lañ yaa Moussa nee na fuure ji ni ko waaw loolu de dëgg la nee na Kaab ni ko maa ngi lay ñaan sa diggante ak yàlla ndax fekkoo ci téere yàlla bi mu wàccee woon ci Muusaa ne Muusaa benn bis dafa xool ci tawret daa di wax ne man di gis naa aw xeet woow ñooy woy sant yi ñooy ñi sàmm jant bi sàmm jant bi nag mooy waxtu wu ne ci jant bi rek am na jaamu yàlla guñ ci war a def aw xeet lañu woo xam ne saa bu ñu bëggee def mbir buñ ne danañ def mbir sàngam danañ ca boole ni inchaa allahu taala Moussa daal di ñaax wax yàlla ni ko yàlla defal ma xeet woowu yi muy samaw xeet Moussa yàlla ni ko Moussa ñooñu xeetu Muhammad lañ sallallahu alayhi wa sallam ni ko ndax gisoo léegi ci téerab yàlla bi mu wàccee woon ci Moussa nee na fóore ji ni ko ah kay ni ko waaw loolu dëgg la kaam ni ko maa ngi lay jépp sa diggante ak yàlla ndax fekkoo ci téere bi yàlla bi mu wàccee woon ci Muusaa ni Muusaa mas naa xool ci tawret benn bis daal di wax naa ah, man de yàlla fekk gis naa ci téere bi aw xeet wow dañuy lekk seeni kafaara ak seeni sarax muy kafaara gi ñu leen digal ñu def ko sañ nañu caa lekk asaka yi ñu leen digal ñu génnee ko sañ nañu caa lekk te ñu jëkk ña day ñoom dañ daan lakk seeni azaka ak sarax yi ñuy génnee azaka yi ñuy génne dañu koy lakk ci sawara waaye nag Muusaa moom lim daan def bokkut ak li ñu jëkk ñooñu daan def ndax moom bu mësaan dajale azaka yi day wër jaam yi di leen jënd di leen goreel ci sarax yooyu azaka yi noonu la ko daan def moom da ci daan jënd ay jaam di leen ko reel mbaa yàlla la ñu dem bu demee ba mu jënd jënd jënd ba gisatul jaam bu mu jënd la ca des ca sarax ya daf koy gas ba mu xoot mu suul ko ca moom Moussa noonu la daan doxe waaye ña ko jiitu nag gis xeet woo xam nag dañ leen a daganal ñu mën a lekk ci seeni azaka daganalal leen kafaara ya ñu leen digal ñu def ko ñu daganalal leen ñu di ca lekk te ay way sabbaal lañu di ñuñ wuyyu seenug ñaan di ay way ramm di ñuñ ramuloo Muusaa daal ni yàlla def defal ñii ñuy sama xeet nee ne yàlla ni ko Muusaa ñooñu xeetu Muhammad lañ sallallahu alayhi wa sallam ni ko ndax gisoo lii ca gisoo lii ca tere boobee fóore ji ni ko aha kay Kaab ni ko maa ngi lay laaj sa digganteeg sa borom ndax fekkoo ci téereb yàlla boobu ñu wàcce woon ci Moussa ni Moussa mas naa xool tawreet benn yoon daal ni yàlla man de gis naa aw xeet woo xam ni kenn ku ne ci ñoom ku ci yéegu aw tund day kàbbari day kàbbar réyal yàlla ni allahu akbar bu wàccee ci aw xur day sant yàlla te suuf sépp it laab na ñeel leen suuf sépp it jàkka la ñeel leen nga xam ne fu leen neex mën nañ faa tiim jullee fa ba yàlla may na leen sax danañu laab ci suuf ni ñuy laabe laabuk ndox buñ amul ndox ñu weex lañ ñu jébbal lañ jébbu nag boo ko déggee mooy tànk yu weex ni tànki fas di jébbe nga xam ni day weex ca bor wàq wa mu ne ko xeet woowu yi jeexiti njàpp day def ci seeni tànk lu mel ni ni ko loolu gis naa ko ci téere bi yàlla yàlla def leen ñuy sama xeet Moussa daal di ñaan yàlla ne ko tënk leen def leen ñuy sama xeet nee yàlla ne ko ñooñu xeetu Muhammad lañ yow Moussa ni ko ndax gisoo lii mu ne ko ah kay fóore ji ne ko ah kay Kaab ni ko maa ngi lay laaj sa diggante yàlla ndax fekkoo ci tawreet ni Moussa mas naa xool tawreet benn bis daal dina yàlla man day fekk gis naa ci aw xeet woo xam ni kenn ci ñoom ku ne bu ittewoo lu baax te jëfu ko sax danañ ko ko bindal aw yiw bu ittewoo lu baax jëf ko danañ ko ko bindal fukk fulal ko ko ba ci juróom-ñaar téeméer sax dina ci àgg te kenn ku ci ittewoo lu ñaaw ci ñoom te jëfu ko deesu ko bind ci moom deesu ko ko bindal moom lu ñaaw loole bu jëfee lu ñaaw loole nag ñu bindal ko ko benn ñaawteef képp yàlla na nga def ñuy sama xeet Moussa ñaan yàlla ne ko na nga leen def ñuy sama xeet nee na yàlla ne ko ñooñu xeetu Muhammad lañ yow Moussa nee na fóore ji ne ko wax nga dëgg de Kaab ni ko maa ngi si laaj sa diggante ak sa borom ndax fekkoo ci tawreet ni Moussa mas naa xool ci tawreet benn bis daal yàlla de gis naa ci xeet woo xam ne ñu ñu yërëm lañ ñu sellal lañ dañuy doon sëb téere am ci ñooñ dañuy tooñ seen bopp ñu tooñ seen bopp mooy ñuy jëf ak lañ leen di tere ñu di ko jëf lañ leen digal defuñ ko ñooñ ñooy zaalimun li nafsihi am ci ñoo xam ni muqtasid lañ muy ñu digg doomu lañu dañuy def li ñu leen digal di bàyyi lañ leen tere mën nañ caa bañ a dolli ay ay naafila ki dara nag waaye dañoo digg doomu rek wa minhum saabiqun bil xayraat am na ca it ñooñ dañoo jiitu ci ay yiw mooy ñoo xam dañuy def lañ leen digal di bàyyi liñ leen tere bàyyi yu ñu sib yi di def mustahabaat yi yu ñu soppi ñooñu ñooy saabixum bil xayraat ni ko alxuraan wax fa minhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum saabiqum bil xayraat zalimun li nafsihi mooy kii def yi ñu araamal te lañ koy digal defu ko muqtasid mooy kii def li ñu ko digal di bàyyi yi ñu araamal waaye dolliwu ci dara saabixum bil xayraat bi mooy ñi nga xam ne dañuy eh, bàyyi waajibaat yi di def muharramaat yi ak makruhaat yi saabixum bil xayraat yi mooy ñi nga xam ne dañuy def waajibaat yi bàyyi muharramaat yi bàyyi makruhaat yi di defit mustahabaat yi nee na mu ne ko akay ah, mu ne ko Kaab ni ko ndax fekkoo ci téereb yàlla bi mu wàcce woon ci Muusa ni Muusa mas naa xool tawret benn bis yàlla man day gis naa ci aw xeet woo xam ni seeni kaamil dafa nekk ci seeni dën te dañuy solit meloy mbubbi aljanna bu ñuy julli it dañuy sàppe ni sàppe malaayika yi mel seeni kàddu ci biir jàkka yi dafay mel ni riirim yambu kenn ci ñoom du tàbbi sawara am na ci ñooñ duñ gis sax xisaab yàlla yàlla na nga leen def ñuy sama xeet nee na mu nee na yàlla ne ko ñooñu xeetu muhammad lañ yow Moussa nee na fóore ji ko ankay ah, nee na Moussa bi mu yéemoo ci yiw woow yi yàlla jox xeetu muhammad salallahu alayhi wa sallam dafa daldi wax ni aka neexoon ma bokk ci xeetu muhammad nee na yàlla wax yu ko ñetti aaya yooyu dana ko ci gërëmloo dana mën ko yaa Musa in istafaytuka ala nnaasi bi risalati wa bi kalaami fa xus ma aataytuka wa kun min ash-shakirin mu ko dama laa tànn ci sama yonent ak ci samay wax kon nag jàppal li ma la jox te bokk ci way sant yi ginnaaw bi mu wax beneen aaya ne wa min xawmi muuse ummatun yahduuna bil xaqi wa bihi yaadiluun am na ci nitu Musa aw xeet woo xam ne dañuy jub ci ak dëgg te ñu maandu la ñuy doon nee na bi mu ko indilee aay yooyu Moussa daal di gërëmloo cër boobu ko yàlla sedd Ibnu Abbas wax na ne Moussa bi mu demee ci Tuuri Sina boroom daf ko laaj ne ko ana looy sàkku si mu ni ko damaa ñëw ngir sàkku ak njub nee na yàlla ni ko am nga li ngay sàkku yow Moussa nee na ni rab ni ni boroomam jaam yi ku la ci gënal nee na yàlla ne ko sama jaam yi ka ma ci gënal mooy ki may fàttaliku te duma fàtte mu ni ko sa jaam yi kan moo ci dàq àtte mu ni ko mooy kii àtte ci dëgg te du topp bànneex mu ni ko sa jaam yi ana ku ci ëpp xam-xam mu ni ko mooy kii sàkku xam-xamub nit ñi di ko boole ak xam-xamam jamono bu ne muy déglu baat bu mu dolli ci baatub njub bu mu dolli ci ak njubam dolli ko ci lam yoroon wala baat boo xam dana ko jàjji ba lu doon bëgg a def ci lu ñaaw mën koo moytu Ibn Mas'ud wax na ni yàlla bi mu jegeñalee Muusa ci tóori Sina Muusa dafa gis ab jaam bu nekk ci ker Arash keruk Arash toog fa Muusa laaj yàlla ni ko kii ko mu mu ni ko kii ab jaam la bopp du añaane nit ñi li leen yàlla may ci ngëneelam ab jaam la bopp dafay topp ñaari way juram te du dox di ràmbaaj nee na Moussa daal yàlla yal nag ma jéggal samay bàkkaar yal nag ma jéggal la ca jëkk ak la mujj ak li nga xam ni yow rek yaa ko xam ci man daal ni yal na nga ma musal ci jax-jaxe sama bakkan te musal ma ci jëf ju ñaaw nee na Moussa ne ko yàlla nee na yàlla ni musaa fegal nañ la loolu yow Moussa nee na Moussa laaj yàlla ni ko jëf yi bu la ci gënal ndax dama ko bëgg a xam ba jëf ko nee na yàlla ne ko nga di ma fàttali ko te bañ maa fàtte mu ne ko sa jaam yi ku ci gën jëf ku ci gën a rafet jëf yàlla ni ko mooy ki nga xam ne aw làmmiñam du fen ab xolam du kàccoor mooy du jàng jëm ci lu ñaaw pëyam du njaaloo aji gëm lay doon ku am ji mooy jullit bu am jikko ju rafet nee na Muusaa ne ko sa jaam yi ku ci yées jëf ju muy jëf ana ku ci yées jëf nee na mu ne ko kàccoor bu yor jikko ju ñaaw koo xam ne guddi gi day mel ni medd fanaane nelaw bëccëg bépp mu yendu ko neenal nee na Muusaa bi delloo ci aw nitam bi mu leen indilee tawreet ñu lànk bañ koo jël bañ koo jafe ngir diis diis ya ca nekk dañoo wax ni bi mu ko indee dafa doon sharia bu diis ci ñoom bañ lànkee ni ko lii attanuñ ko nee na yàlla yebal jibril mu buddi aw doj woo xam ne yaatoo na farsax gudde farsax mu ñëw yëkkati ko bam tiim seeni bopp mu mel ni ak lëndam mel ni aw niir wu ñëw ba jege leen lool ñu ne leen kilomètre mu ñëw ba jege leen ñul kukk mel ni aw xiin nee na ñu ni leen xuzoo ma aataynaakum bi wa lii ñu leen jox jël leen ko ci forse te dégg liñ leen di wax bu fekkee nangu ngeen ko jëf liñ leen digal baax na bu ngeen ko nanguwul doj wi ci seen kaw bopp yi la jëm te dinañ leen labal ci biir géej gi lakk leen ci safara fañ jaar ak seen noon ya ya leen jiitu woon fañ jaar ak ña jëkkoon a lànk ndigali yàlla nee na bi xoolee ba gis ni ab dawukaay amut kenn amul fu muy jaar ba daw lii lañu daldi sujjoot sujjoote seen pegg ja di gendiku doj wi jàpp ni mi ngi agsi loolee tax ba léegi sunna la ci yahood bu ñuy sujoot seen pegg ja la ñuy sujoote Muusaa daje nag tiit yu bare bare ci bani Israil ci bi mu leen di woor ci tawhid dafa mel ni mu mucjisaat yi ko yàlla defaloon ci digganteem ak Firawna ak li mu leen won ci xeeti kiimaan ñoom bani Israil waroon naa doy sëkk ba du sonnati benn coono waaye sax gi jaamu xiram sax ci seeni xel ci diiru yàgg gi jàgg ak waa misra yàgg gi ñu yàgg ak waa misra ba jaamu xiram des ci seen xol tax na rek coono bu ne Muusaa daj ko ngir gindi leen muta bokk na ci desiti jaamu xiram gi nekkoon ci seeni xol nu nu ko waxe woon ci ginnaaw bi ñu jéggee géej gi rek lañu romb mbooloo muy jaamu xiram ñu tàmbalee ñaan Moussa naa ko dañoo bëgg nga defal nu benn xiram defal nu benn yàlla bu mel ni yàlla ñee ngir ñu mën koy jaamu yàlla ni leen ndax dama leen di sàkkul benn yàlla budul yàlla yéen day réer ngeen mën leen ñoo ñi di jaamu lu li day li ñuy jaamu lu alku la te dañuy def lépp ay neen la te dañuy perte seeni jëf te ci alkandi rek lañuy mujj ndax di yéemu lool ci sàkku gi ñuy sàkku benn yàlla noonu bu ñu war a jaam bul yàlla ni leen ndax dama leen sàkkul kenn ku ngeen di jaamu ku dul yàlla mi borom bindéef yi te moo leen jagleel teraanga ji gënal leen ci xeet yi lu mooy axayrallaahi abqikum ilahan wa huwa faddalakum alal alamin bokk na ci ngëneel yi yàlla defal bani Israil bi ñu jegee géej gi ba dem ci tefas gi ci penku amuñ ndox mu naan amuñ ndox mu màndale seeni dàbba ñu jàmbat Muusa lool yi Muusa ñaan yàlla yàlla digal ko mu dóor doj wi ci yet bi mu yoroon bi mu ko dóoree la fukki bët ak ñaar bal te fekk fukki xabiil fukki giir lañu woon ak ñaar géej gu ne ab am naanukaay bu muy naane bi ñu àggee ci joorug shibhu jasirati sinaa te foofa jant bi tàng jër amuñ néeg yi ñu dugg gisuñ fa garab gu ñuy kerloo ñu jàmbat Muusa loolu bi Muusa ñaane yàlla yàlla xëccal leen aw niir woo da leen di tiim fuñ toll di leen keral loolu bokk na ci xéewal yi yàlla defal bani Israel biñ demee ba seen biiba di bëgg a jeex ñu jàmbat Moussa Moussa ñaan boroomam yàlla wàcceel leen li ñuy wax almannu wa salwa mannu ci wolof lem gu weex lañ koy firee waaye daal ala kulli xaal ab matière la bi jóge ci jaww ji ni tawab mësee di wàcce muy day wecc bi ci buy ñëw di wàcc ci kaw doj yi ak ci xobi garab yi yor cafka gu neex gu mel ni cafka ak lem salwaa nag buñ ko waxee njanaaw la moom itam yaakaar naa moom lañuy ñuy tudde gëmmeen yoo xam ne daf ko yabal rek mu doon yu bare bare di wàcc ci suuf bari lool ñu di ci rëbb di lekk ndawal dinaan ci lem ko lem gu weex googi waaye bi leen yàlla defalee xewal gi yépp it taxul rek ñu sant yàlla dellu ci tawxiid ni Muusaa bëgg ci ñoom dañoo wéy rek ci seenu kéefar weddi xewal yooyu ci weddi googu ñu ko weddi nag ci lañ bokk ci ci lañ tooñe seen bopp loolu yi daal xawaan di junjëni wa xataanaa musnatay ashrata asbaatan umaman wa awxaynaa ilaa Muusaa id istasqeehu qawmuhu an idrib bi asaaka alxajar fam bajasat min husnata ashrata aynan qad alima kullu unaasin mashrabahum wa dallalna alayhim alghamama wa anzalna alayhim almanna wassalwe kulu min tayyibati ma razaqnakum wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadlimun dañu wax ni Muusa dafa waxoon waa bani Israil ca Misra ni leen yàlla dana alak firawna dana wàccee ab téere bu bàyyi ko fa moom def ci ay ndigalam ak i tereem wan leen yoon wi ñu war a jaar bi yàlla demee ba alak firawna Muusaa laaj yàlla ñaan yàlla téere eh, téere boobu ma ko digoon yàlla digal ko mu dem ci peggu doju tuur al ayman maanaam eh, jabalu tuur ca wetu ndeyjoor ka la ko digal mu dem fa am fanweeri fan di woor di jaamu yàlla nee Musaa tàggoo bani Israel ne leen maa ngi dem ci di yàlla ji ak sama borom duma fa am lu ëpp fanweeri bis bi demee ba am fa fanweeri bis yàlla digal ko yeneen fukki fan ngir mottule ko ak jaamoom Musaa bi mu daatan dem nag mu waxoon Haaruna ne ko toogal fii xaar ma fi te yéwénal mbiri bani Israël te moytoo topp yoonu yàqkat yi yoonu yàqkat yi na ci moytoo jaar waaye ginnaaw bu ñeen fukk fan yi matee neexiitu jaamu yàlla bi mu yëg neex ci moom ba ba loolu doyatu ko mu ñaan yàlla mu woon ko boppam waaye yàlla ne ko mënoo maa gis bi ko yàlla bëggee xamal ne ko sàkku nga mbir mu màgg a màgg moom doj yi sax attanuñu ko la ko digal ni ko xoolal doj sàngam bu dojoo mënee sax birabam bu mënee sax ci bu fekkee sax na ci palaasam rek kon dang ma mën a gis waaye bu ko doj wa attanu nag kon yow taxu de si wax ba mu feeñoo doj wa doj wa def ban jaxasu ak suuf comme ni ñu ko nettalee woon ci ginnaaw yàlla ne ko nag li ma la defal muy ak yonent ak tànn la wax ak yow jàppal ci loolu li ma la jox tey sant yàlla niñ ko waxe woon muy waa bani Israil jaamu xidam dafa sax ci seeni xol dàkk ngir yàgg giñ yàgg ak eh, waa misra waa misra nag bokk na ci xërëm yi daan jaamu dañoo fonkoon aw sël di def saabu aw sël de dafa am seen bàmmeelu bopp ñu leen denc wut laj ko lañ xeeñal kooko mel ni koy denc nit bàmmeel yu daan tuddee strapion benn waay bu naafiq ci waa bani Israil ki ñuy wax asaamiri yu waaye mi ngi woon ci biir nit ñi waaye ab naafiq la mu occasionné ci gëm googu ñu gëmoon sël yooyu daal di wut aw sëll andil leen ko ni leen kii mooy seen yàlla mooy yàlla yi Muusaa dafa dem di wëri yàlla far fàtte ko fi yàgg gi yàgg ci àll bi lépp yàlla ji lay wëri ginnaaw Moussa waxoon leen du ëpp du fa am lu ëpp fanweeri fan far boromam digalaat ko mu war yenn fukki fan yàgg gim yàgg ñu daldi wax ne Moussa dafa faussé rendez bi mu ñu joxoon bi ñu waxee lool yi nag Moussa Assamiri yu daldi occasionné ci lool yi jël sëll woowu wax nañu sëll yi mi ngi ko liggéey ci takkaay yi bani Israël yi seeni jigéen yoroon jële ko Misra dana àbbu seeni takaay ñoom ñëpp daf ko ci safara daat koy togg liggéey ci aw sëll liggéey ko diggee bu yéeme boo xam ni saabu ngelaw li duggee ci wet gi day génne ci gémmiñ gi di nuru kàddug nag dafa mel ni nag wuy nàññi daal saamiri yu digal leen ñu di ko jaamu nee na bi ñu tàmbalee jamono googu Haaruna ñëw yee leen fàttali leen leen Muusaa déggaloon muy tawhid ak jàmm seen boroom dong xamal leen ni leen lii fitna la ñu leen fitnaal waaye wérut waaye ñu bañ nekkoon ko duñ fi bàyyi ko mukk duñ bàyyi mukk jàmm gi ñuy jaamu sa lu wéetal Muusaa dafa dal si ci noonu mënalu leen dara ci biir deyaale gi Muusaa doon deyaale ak borom ci la ko borom xamale ne samiri yu fitnaal na sa waa kër bañ bàyyi seen diine sa réeral na leen Muusaa dal di si mer lool am njàqare xol daal di ndax seen boroom dalu leen woon dal bu rafet muy daan leen jox taw ak njub akuk leer nekk ca te daal bi mu leen daloon def na ko wala tàggoo gi ma tàggoo yéen dama yàgg ci àll bi ba tax seenu ngëm ngeen bëgg koo wecce ak kéefër wala da ngeen a bëgg a jëf-jëf ji ñaaw ku ko jëf ku ne dina yeyoo merum boroomam moo tax ngeen foose sama rendez bi muy li ma leen daloon muy sax ci ngëm ngeen wuuteeg moom nee nañu wax Moussa ni ko faussé wuñu sab rendez-vous wuute wuñu ak sab dal ci suñ coobarey bopp defuñ ko ci suñ xaymanteef bopp waaye nag saamiri yow moo nu réeral ba yóbbu suñuy xel jël mbooleem li ñu ci urus wurus jële woon ko ci waa misra mu wax ni mu laaj na ko ni nu lii ngeen takk ci xeeti takkaay or yiy jóge ci waa misra du dara lu du ay bàkkaar ay bàkkaar képp la leen di dolli kon dangeen ngeen koy indi yéen ñëpp ñu boole ko sànni ko ci safara lakk ko ngir ñu mën ci gërëm yàlla ngir ñu mën ci amee ngërëm lu yàlla wax jooju bi mu ko waxee dafa jub ci suñuy xel ñu dëggal ko jël sunuy takkaay jox ko mu sànni ko ci safara moom ci jëmi bopp nit noonu la def muy lam yoroon daf ko fa boole ko ci bi mu ko defee nag lanu génneel yëkk wii tëgg ko tëggin wii neen ma kii mooy seen yàlla di yàlla yi Moussa moom ngeen war a jaamu musaa daf ko fee fàtte dem di ko sàkku ji ca doj wa waaye mi ngi nii ci lii la yóbboo xele nit ñi bañ topp ko Moussa yedd leen leen waaye xanaa xamu leen ni lii ngeen di topp du jariñ du lor te mënta wax ak yéen benn baat du dara lu jamaat muy aw doj rekk la ku dul yëngu du wax ameelu leen jëriñ ameelu leen lor nag topp gi manqué te xel la ci yéen bi Musaa waxee ak waa bani Israayil loolu wëlbati ko jàkkaarloog mbokkam na wax ko wax bu tar jàpp ci sikkim bi ak kawari bopp yi di ko dëri di ko wax ni ko ana lu tax bi nga gisee nit ñuy sànku di réer nga bañ leen a wëlbatiwaat ana lu tax la ma la digaloon defoo ko nee na xaaroon ni ko ragal naa loolu nga wax ni man maa te xàjjale ba ni diggante maa dox diggante ba ni Israël ak ñu topp la waaye day sama kem kàttan def naa ko ci dama jaamunul dara rek Moussa daal di wëlbati ko jàkkaarloog Samiri yu bi yedd ko moom itam moom mi nga xam ne moo sabab rek googu ñu réer saamiri yi tontu ko ni ko damaa xam lu kenn ci ñoom xamut muy xam naa ni yow li ngay woote du dëgg dama laa toppoon nag jël dara ci sa diine ginnaaw bi ma bàyyi ko dellu ci jaamu xeram dellu ci jaamu sël bii ni ko lii la ma sama xel jox ma rafetlu ko def ko nee na Muusaa ko demal sa mbugal ci àdduna mooy foo di wax laami saas laami saas nag li muy tekki mooy dérug laalante mooy kooku bëgg laal saa bu ko nit laate laalee day metti ci moom ba tax ko ku jub bu ko bëggee laal sax mu ne ko laami saasa nee na Moussa bi mu jógee ci Samiri yu daal di dem jël yëkk wa sëll woowu ñu doon jaamu lakk ko dëbb ko ba mokk mu jëri ko ci géej gi banu Israël nag rëccu gi ñu ko rëccu lool seen tarxis kooku daal di jéggalu suñu borom seen borom tooñaa nga jooju ñu tooñ ak dellu gi ñu delloon ci jaamu xiram yàlla wax yu Moussa ni ko seenu tuub mooy ñu rey seeni bakkan rey seeni bakkan nag mooy not seeni bànneex ak laabal ko ci xeeti bon bon yépp ak xeeti bàkkaar yi ak lépp luy lu ñu xemeem rek ñu bañ koo jëfandikoo buñ defee loolu de yàlla dana leen jéggal loolu mooy li alxuraan di wax ni qaala fa inna qad fatanna qawmaka min baadik la adallahum saamiriyu فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أمرتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي ayoyi la topp ba wax saamir yi ni ko wandur ila ilaahika alladi dalta alayhi aakifan lanuharriqannahu na لننسفنه في اليم نسفا banu Israël bi ñu xoolee ba gis ne tooñ nañ seen bopp gis ne def nañ bàkkaar bu rëy ci jaamu gi ñu jaamu sëllu yi Musaa tànn juróom-ñaar fukki gaay ngir ñu dem ca doj wa doj wa mu baaxoo woon a diyaale ak boromam mu tànn juróom-ñaar fukki ñoom ngir ñu mën a dem foofa ngir mën faa topp yàlla ak rëccu bàkkaar boobu ñu def wax nañ foofee yàlla waxante na fa ak Muusa ñuy dégg waaye lu ëpp waaye mbooloo mu bokk ci ñoom juróom-ñaar fukk yooyu ñu tànn nga xam ne ñu ci dàq jàmm yàlla am na ci mbooloo moom gëmuñ ni kii di wax ak Muusa yàlla la moo tax ñu fetteerlu daldi di moy ni ko nag euh, duñ la mën a gëm mukk ndara bu dañoo gis yàlla jaaran ci suñuy bët ndax li ñu dégg ba tey amuñ ci yàqin nee na bi ñu sàkkoo sàkkoo gu diis googu yi ak weddi googu ñu weddi nag yàlla yebal fa ngelaw lu bare bare bari loo xam ne dafa ñëw rey leen ñun ñëpp ñu daanu ñu daanu ginnaaw buñ dee yàlla dekkal leen ginnaaw bu Muusaa turaxloo ña wax yàlla ne ko nu may delloo ci bani Israel te ñi ñoo doon tànnee fi bani Israel te rey nga leen bi mu turaxloo ci boroomam boroomam dekkal leen mu sàkku mu jéggal leen ndax dañoo manki muy ñooñu manki ba di ko weddi Muusa sàkku ci boroomam mu jéggal leen loolu mooy dafa sàkku ci yàlla ne ko lii ñenn ci way dof des way dese yi dof euh, way dese yi def de bul ko jàppe ñi dara sikkul ci ñoom nee yàlla jéggal leen daal di leen di dekkalaat Moussa sàkkul leen yërmande ak njëggalug yàlla moom la alxuraan naan waxtaan Muusaa xawmahu sab'iina rajulan li miiqaatinaa falammaa axadathum rajfatu rajfa mooy euh, rëng-rëng mooy euh, tremblement tremblement de terre rëng-rëng yi doj bi moo rëng-rëng ba mu leen jotee bañ dee ñun ñëpp qaal rabbi law shi'ta ahlaktahum min qablu wa iyyaaya ana Muusaa ni yàlla boo la neexoon nga alak leen alagaale ma ci waaye nag atuhlikunaa bimaa fa'ala sufahaa'u minnaa ndax dañ nga ñuy alaga ci li nga xam ne way dese yi ci nun rek ñoo ko def daal di ko in hiya illaa fitnatuka tudillu bihaa man tashaa'u wa tahdi man tashaa'u anta waliyuna faghfir lana warhamna wa anta xayrul ghafirin ñaan goog moom la Muusa ñaan boroomam mu dekkal leen moom euh, lànk giñ lànkoon dégg giñ dégg wax yàlla ba noppi nanguwuñ ko gëm jàpp ni du yàlla moom la alquran naan wa is qultum ya muuse lan nu'mina laka hatta nara allaha jahra fa axadatkum as-saaxiqatu wa antum tanzaruun